di dalal xel yi di wax ne keroog bi nga xamante ne am na dañoo déclenché li nga xam ne mooy ay plan blanc tey suñu hôpitaux yi ak suñu structure de santé yëpp mu bu ci doon bu ngeen demee contrôler débordé wul santé nag ak action sociale des fois dañ du wax lu bëri mais boobu ba léegi ñu ngi circulé ñu ngi jot ay rapport rapport yi jox nañ ko ñi ñu ko war a jox mais amul benn débordement te lancé nañu sur le plan blanc ne ku am tey gaañu gaañu doo faj ñi nga xamante ne nag yàlla jël na seen bakkan ñu ngi wu askan wi ñu ngi jaale ñëpp ñaan yàlla xare leen ci àddina bi gën a kawe mais ñooñu itam ndegem boo tëbee nii rek tey ji nit amoon malaise fii bu ñu la yóbboo tey duñ joxe sa koor am lu mu àndal dafa am yoo xam ne ñun daf ñuy dépassé c'est sur le plan juridique ba nga xamante ne autopsie daf ci am te ma wax ne depuis vendredi autopsie yi commencé na